yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi mbokki jullit yi ak fuñ mën nekk ñoo ngi leen di nuyoo fii ci jumaay Touba di leen wax asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu fi ngeen ma nekk ci réew mi ak bitim réew di leen jaajëfal bu baax a baax di ñaanal euh, ak yokk Euh, ki nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha Basir ak gudd fan bu baax a baax moom mi nga xam moo ñu dooleel jàpp ci liggéey bi. ñu nekk ci ndigalam fii nga xam mooy barab bi nga xamante ni képp ku fi nekkal Cheikh Khadim Cheikh Amadou Bamba mooy sax moomeel di moomeel jullit ñëpp. daayira Muxaddamatul nekk fii ci taxawaay bu am solo boo xam mu ko fi waaye itam mu ciy faral di feggoo ak euh, gan yu ko ginnaaw bu nga xamante ni def na ay waxtaan yu am solo muy conférence yi nga xam moom day baaxoo di defee. Euh, tey jii ñu doon waxtaanee conférence bu am solo muy wax fu Euh, bu ci noppee nag day daal di ñëw fii nga xam ne ci keppaaru yokk gi ñu ndogu ndogu yooyu nag mu ciy faral di invité ñoo xamante ni ay gan lañ ñoo xamante ni dañoo sëq ak daara bi euh, liggéey bu am solo tey jii daayira xidmatul xadim bi nga xam ne moo lëkkale mboolem tapisserie Sénégal yi région bu Diourbel boog sax euh, ñoo ñoo ñoo ñoo ñëw tey sëñ Madior Dieng jiite délégation bi jombul ñoom sax am na liggéey yoo am solo ñu fi def ndax parasol yi nga xam moom ngeen di gis ci jumaa ji ak yeneen yoo xam ne xëy na waneeguñ ko ñoom ñoo ko fi defar sëñ Madior ngeen ñëwoon tey fekk si daayira euh, Muxaddamatul Xidma ngeen bokk liggéey bi bokk di liggéey Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ci jumaam ju sell ji lan nga ciy jàngat ginnaaw bi nga xam ne ñëw ngeen ak délégation bi nga xam moom nga àndal incha allah. seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñi ngi fay nuyoo bu jot a jot di ko jiital ci xalifa général des mourides sëriñ Mouhamadul Mountakha sunu borom may ko wér ak gudd fan mën naa lam yëpp ak sunu moom yëpp ko ba sanc ko ba ràppal ko ba sumbaat yeneen ak yeneen ak yeneen te ñu ànd koog moom ci barke Cheikhul Khadim ñi ngi fii tey teew ci délégation bu am solo muy ci sama kàddu sëñ Madior Dieng ànd ak euh, sëñ Abdou Lahad Ndiaye te mu féete mu nii sama ndijoor sëñ Abdou Baaxe nga xam ne moo yor lépp luy relation extérieure ci biir xidmatul Khadim euh, ki sa si man di bàyyi sëriñ ñing te yore lépp luy wàllu communication ci xidmatul Khadim ak sëñ Omar Faye mi nga xam ne moo yor secrétariat ci biir xidmatul Khadim tey ñoo ñëwoon fii nag wuy si woon woote bu jot boo xam ne waa daayira Muxaddamatul Xidma woowoon nañ ñu ko fii ci wàllu koor gi ci ndog yi am fii waaye nag ñi ngi jiital ak cantam ak ay ñaan di ko jëmee ci waa Muxaddamatul Xidma muy daayira boo xam ne daayira bu yaatu bu am solo la tey def liggéey Sëñ Tuubaa bu am solo ci jumaa ji ñu ngi ñaanal sëñ Afe mi nga xam ne moo ko jiite ak sëñ Abdou Lahad ak mboolem waa daayira bi yëpp yàlla guddal seen i fan te àggale seen yéene ndax ñoo fi nekk nekk fi murit yëpp te di jëf-jëf yu am solo yoo xam ne mboolem ku fi teew rek soxool dana sedd te di nga gis liggéey bu taaru boo xam ne dana sagal yoonu murit waaye dana sagal lislaam bépp ak diine ndax nii ñu koy defee ci jumaay Tuubaa ba Makka nii rek lay doxee fu dëkku diine am ci weeru koor waxtu dog jotee rek dinañ fàggu barab boo xam ne jullitu yàlla bu dox ba agsi fa dañ la fa mën a jëfandiku seet sa bopp bu baax a baax ci wàllu koor gi kon yàlla na yàlla guddal seen i fan tàggale leen seen yéene Euh, barabu sëriñ Touba la te ñu ngi taalibé Serigne waaye dafa fekk ne am nañu pas-pas ak jaayante goo xam ne lépp loo xam ne aju na ci wàllu lëggee Serigne Touba ci wàllu tapisserie rek daayira bi da ko jaayante fas yéene ko def muy jumaa ji ak résidence kër Serigne Touba yëpp fépp foo xam ne Serigne Touba na nga ko fi tudd ko tudd rek lépp lu fa war ci defaraat ak yeesalaat daayira bi moom engagé na ko jaayante na ko kon ci turu Baye Cheikh Diané mi nga xam ne mooy jëwriñ ji di président d'honneur bi ak man mii nga xam ne ma maa topp ci moom ak ñi ma àndal ñëpp ci na gën heure bi daaw rek ci wàllu baraxlu ñu ngi woon fii ci jumaay Touba defoon recensement ci parasol yi fi nekkoon yëpp yeesalaat ko defaraat ko ànd ak daayira Xidmatul Xadim métallique yi tam ñu réparé lépp weññeeg lépp ba ñu ànd ba lépp normalaat fi ñu toll nii tàmbali waat nañ ko di ko recensé di xool lépp lu ci war ci réparation incha allah bu ñu nee ba wori ba naan ndox rek dañ ko ak àggale liggéey boobu ngir yàlla ak jëmi sëñ Touba ko tamit sëñ Mouhamadou Mountakha su dee ci wàllu wàccaay yi yeneen yi des itam mooy ku ne xam na ne kër Sëñ Tuubaa bu demee ab diir dana laaj mbooleem métier mu nekk dem fa saytu la fay sa liggéey yeesalaat ko ndax sëriñ bi moom la yàlla fay loolu sëriñ bi la yàlla gërëm fay ko pay goo xam ne lépp lu mu soxla woo moom Cheikhul Khadim am na ci biir këram. Sëñ Tuubaa du jéggaani dara ndax yàlla fay na ko lépp mbooleem kooru métier yëpp am na ci Tuubaa mu amee ci tapissier yi noonu la amee ci menuisier am ci métallique yi am ci plombier am ci peintre am ci caloreur am ci ñëpp loolu nag bu amee day wane ni sëñ bi dam doon liggéeyal yàlla yàlla nangu na ko te yàlla gërëm na ko te yàlla fay na pay googee na ci leen dugg ñun ñëpp ñu ngi ñaanal sëñ Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi lool te wér te gu ànd ak liggéey bi ba ci kanam ak kanam ak kanam ci barke Cheikhul Khadim maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi